deux mille man 1975 la commencé xeex cigarette juillet 1975 laa toog Tambacounda def benn conférence pour yee jeunes yi. booba doonaguma docteur. après ci laa dugg école militaire de santé ba doon médecin militaire ba doon enseignant d'université ak lépp ne damay continuer mais ba ma demee ba ci biir xam ni yëf du wax rek moo koy régler jëf def ci bokk 92 pour cent ñiy toox ñi ngi ci école yi man kaay ma dugg ci école yi waaye xam nga boo duggee ci école yi dugg dugg dugg après tu te rends que tey jii nii. Mm. nit bu taxawee fii ne damay toox loo ci man dara da koy dóor wala leneen. Mm, mm. doo ko dóor fii ak loi amul. ma ni léegi damay boole ñëpp ñuy xeex cigarette ci benn ligue de ko listab dama créé woon liska tudde ko liska. créé listab tudde ko listab muy taba mm-hmm. 2011 laa def loolu réunir ñëpp ñu ne ma boo demee seeti ji gouvernement bi fi mu ne nii ñoom ak industrie du tabac lëkkaloo nañ lëkkaloo boo xam ne bii gouvernement bi dafa nar a taaba taaba rek daal di def benn kii ma xaar ba élection yu jeg jib ma bind candidat yëpp. candidat yëpp. yëpp laa bind maa ngi koy. local wala présidentiel. présidentiel 2012. Okay. ma bindu ñëpp kenn tontuwuma Macky Sall moo yónni Diène Farba Sarr dama leen joxi tur de yu leer ne ko demal nga ni sa xarit bi bis bu ma éliroo dina am prés dina am euh, loi anti tabac naka la falu ñu def seeni législative gagné mu yónnee Moustapha Diakhaté Moustapha ñëw ne ma ah borom kër gi nee na dafa bëgg ñu am loi man maay euh, ma nekkal nu koy waxee ci APR comme président du groupe parlementaire kaay ñu defaree loi ñu dem seeti ji Awa Marie Coll Seck waxtaan ak moom ci juróomi ponk ya may wax toujours ñeenti ponk yi mu ne d'accord na juróomeel bi mu ne d'accord. ci lan la d'accord woon. mooy. ma ni ko toxkat yi du ñu rey seen bopp rek dañuy rey ñu dul tox nañu tere tox ci biir askan wi ça ne fait pas nga daal di jël sa benn piscine daal di rëdd benn trait ci digg bi ne fii mën nga fee saw fële mënoo fa saw xam nga ni boo sawee fi mu dem fa ca donc loolu la ñu déggoowu mais sinon loi bi boo ko xoolaatee. Mhm. loi bu dëgër. d'accord alors.